jàppukaay bu taaru bi ñu ñu dalal tey mu nekk liggéey bu rafet boo xam ne état sax la war war Sénégal yëpp ñu ngi ciy ndokkeel xalif bi bu baax a baax di ci félicité Baye Ciss mi ñu ko denkoon mu liggéey ko liggéey bu rafetee nii maa ngi nuyu njabootu cheikh islam bi yëpp di nuyu imam bi sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di nuyu tamit porte parole bi c'est une Cissé di di ziar di len jotali président de la république Bassirou Diomaye fay ak gouvernement bi yëpp ci Ousmane Sonko mangi ngi dalal gani, rawatina ñi ko bitim rew ñew teewe bés bi fi bi ma. ñëw naa fi tey teew fi am mbégte lool ci teewaay bi teewal fi njiital réew mi ginnaaw bi ma la jottalee nuyoom maa ngi nuyu njabatul cheikh al islam gi yépp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di bis boo xam ne bis bu am wàccuwaay la bis bu am njëriñ la ci réew mi président bi mu insister bi wax leen bi mu fi ñëwee waxoon na euh, cofeel gi ma am ci kër gi mu nekk gu lool mu di ma wax ma waxaat ko bi président de la république mu ngi rafetlu bu baax sa taxawaay ci dox jàmm ci réew ak ci bitim ni mu la ko waxe woon bi mu fi ñëwee cofeelam ci kër gi lu yàgg la waaye noonu la ko amee cofeel gu mel noonu noonu la ko amee ci kilifa diina yëpp moo tax muy woo waa réew mi ñëpp di wormal nit ñëpp ci seen ngëm-ngëm ndax loolu mooy indi jàmm ci société bi sëriñ bi président la république mu ngi yëgal kër diina yi yëpp yéene gu rëy gi nga xam ni moom ak état bi am nañ ko ci seen seen seen lëkkalante ak seen euh, partenariat ak kër diine yi ba nga xam ne lépp lu ñu sumb ñu jàppale leen ci ci ni mu gën a rafete moo tax muy dellu di wax ne dina bàyyi xel bu baax ci relation gi nga xam ne moo war a dox diggante état bi ak kër diine yi président la république mu ngi jaajëfal bu baax taalibe cheikh al islam yi bàyyeeku ci àdduna yëpp ñëw fii Sénégal teewe fi bés bii loolu sunu fierté la ak su ndawu réew ndamu Sénégal la ndax maam Baye Niass ambassadeur islam ak ambassadeur Sénégal la woon ci àdduna si yëpp rawatina ci Afrique yëpp te tamit loolu ndono la ndono la héritage la boo bu ngeen bu mu bàyyi seen loxo xalifa bi tey ak xalifa yi ko fi jiitu woon yëpp sa taxawaay taxawaay xalif bi si bitim réew rafetlu nañ ko lool ndax ci dox jàmba la noonu tamit lañ koy rafetale ci biir réew mi ñu ko ci ndokeel bu baax a baax a baax ñaan borom bi mu yàggal ko fi te sàmm ko sëñ bi président de la république mu ngi sàkku tamit nga ñaanal réew mi suñu borom def fi jam ak dal ak natangé mu ngi sakku nga ñaanal ko ba yéene bi mi am ci réew mi ak yaakaar gi sénégalais am ci mom mu am katanu mottali ko te lépp doon lo xamni ni yokkute lay doon ak natangé ci réew mi gënaaw lolu sëñ bi ma ngi lay sant bu baax ci tour président ak bolem gouvernement bi ci tour premier ministre bi ak délégation bi andak man ñaan borom bi mu yàggal fi xalif bu baax te may ko wér te defal ñu gàmmu jàmm salaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim